lii doytina waar mbokki internet yi ñuy àndal ci seen rubrique fait divers yi ab tailleur la mbokk yi waaye amul soxna célibataire la amul ay doom ji bugaar la wuyoo am na fanweeri at mu nga dëkk ndar Saint-Louis moom nag sàcc bu xarañ la ndax ci benn jakarta daal la ko bëggoon a teg ngir dundal ay poosam waaye bi mu lalee pexeem dafa daldi di bàyyi ko Saint-Louis ñëw Kébémer bi ñëwee Kébémer ci bis bi nga xamee ni yegsi na mu tàmbali lëkkaloo ak benn booy buy dawal Jakarta ngir mu koy yóbbu ci ay course fa mu ko njëkk yóbbu nag dañu ko yóbbu ma kaso maison d'arrêt et de bu Louga kaso ba dafa am ku may seeti kooku yóbbu ko bi mu tegee ci Jakarta bi ñuy waxtaan mu ni Jakarta man bi man agent police la dan may door a affecté Kébémer tey nag dama duggoon ci dëkk bi di dellu ni prison ñuy waxtaan waa ji am ci moom confiance ba mu demee nag ca ëllëg sa mu ñëwaat ci arrêt moto Jakarta bi ngir nag dajeeg xaritam bi ko yóbbuwoon démb diggante 17h jàpp 19h ñoom ñaar ñuy waxtaan dugg ci sujet bu ne waaye mbokk yi tailleur bi ndekete boobu teg na plan ba nga xam ni exécuté dong moo ci des maanaam plan bi dawal ko rek ci des nañ la def mbokk internet yi dafa ni booy bi danga may aar jakarta bi ndax dama am benn urgence booy bi ni ko en ah bon ci looy kii ni mu ni ko benn trafiquant de drogue daal laa bëgg kari benn booy bi yëngu ci njaayum drogue moom daal la ma seef ni ma faaw ma dem kari ko booy bi daal di gëm bugaar donte xalaatu sax daa di jox Bougar léegi nag bi Bougar démarré Jakarta bi moom ci la xelam commencé tey mu commencé di poser boppam ay question naan kii démarré bi mu démarré nii Jakarta bi ak ni muy conduire nii ndax kii mën naa dawal ndax jug na parce que boobu mi ngi patam patam yi di këdd Jakarta bi ak di xool sa waay booy bi nag xelam ñaaw mu daal di koy jox Jakarta bi jox ko caabi ji bi mu demee nag moom xalaatut woon ni booy bi wut na beneen moto di ko topp. boy bi di ko topp te gisu ko moom faux policier bi nga xam ne ab tailleur la mu daldi jaar ci benn baar dugg màndi génn jaar ci benn station d'essence def plein ba mu defee plein nag xalaatul ni sax boroom jakarta bi mi ngi koy topp mu daal di moto bi jël yoonu Louga wi booy bi topp ci rek booy bi topp ci muy daw di daw di daw di daw ba gestu yem ci booy bi ndekete yoo booy baa ngi ko topp boobu ñu ngi génn Kébémer ci sorti bi ca la accéléré moto bi rek booy bi topp ci ñuy nal nali ci tali bi di daw bugaar di daw booy bi di ko topp bugaar di daw ba nga xamee ni nag mënatut a daw léegi nag booy bi freiné ci kanamam ni ko waa fan nga jëm moto bi mu ni ko waa ji ma doon topp nee nañ ma dugg na ci beneen oto te ma nga jëm Louga moom laa doon topp nii booy bi nag ni ko loolu moom du wax joo xam ne man dinaa ci guddeel da ngay arrêté ñëw ñu dëpp wàccel moto bi ma jël sama moto yow nga des fi mais man joxatuma la sama moto pour ngay continuer parce que li ngay def yow li ma wax ak fi nga mujjee bokkut te topp naa la gis naa la nga dugg ci baar mandi gis naa la nga ñëw ci station jël de essence dem sa yoon loolu lépp nga koy def te gisuma la te man maa ngi lay gis kon yow juboo waa ji itam ni ko nag du ma wàcc ñu nekk fa mu jékki-jékki xàcc kurfeñ bu diis boo xam ne rek dóor booy bi mooy ñi nga xam ne danoo njaxlaf ci xeex tay ko booy bi ci kanam gi rek booy bi yat yati ni dërr ci suuf mu jàpp nag ni assommé na booy bi daal di yéeg ci moto bi départ malheureusement ndekete moto bi dañ koo tëj ndekete moto bi dañ koo tëj ci benn télécommande la ko booy bi tëjee du mu daanoo noonu ak daanu force bi rek fay na moto bi ci commande bi téye commande bi nag banku parce que kurfeñ bi mu encaissé dafa diis waa ji dafa njaxlaf fi mu koy kiyee rek mu rapproché ko rek bi mu ko tayee kurfeñ bi booy bi këpp la def ci suuf moom bugaar mu daal di jekki-jekki nag ni ahan daa di daanu moto bi wàcc moto bi rek samp xelam di daw bi muy daw nag tombeeg booy bi jekki-jekki rek ci atmosphère boobu booy bi ni bërit rek daal di yuuxu rek mbooloo mi topp ci ginnaawam ñuy daw di daw di daw ba sa dugg ci genn kër bi mu duggee ci génn kër yéeg ci kaw zeng yi bi mu yéegee ci kaw zeng yi nag mbooloo mi fees dell kër gi ba bunt kër bi mënuñu ko tëj kër gi fees dell waa kër gi non seulement tiit nañu surprise bi ñu leen bett tiit nañu beneen bi ci des bugaar mi ngi ci seen kaw zeng yi mel ni am muus di njatt njatti ñu jekki-jekki mu génn benn arme blanche ni gaa yi ku fi yëg si dinaa xaru yëg si leen rek boo leen may jige may xaru daa di wax loolu bi nu waxee loolu gars yi reculer mu daal di jekki-jekki moom itam fi muy arrière rek daal mbasu bi mu mbasoo daanu daanu daanu bu metti zeng yi yàq yaram yépp mu am ay blessures graw graaw ba mu daanoo nag la ko gars yi sëkkatoo rek jàpp wuteeg moom police ba ko jàppee mbokk yi dañ ko yóbbu police ñu dem yóbbu ko ñu faju ji faju ji ba mu faju jee ba pare mu ñëw def audition bi jàkkaarloo enquête kat yi enquête kat yi ni ko da nga ne yow policier nga dañ laa affecté Kébémer yaa ngi door a ñëw waaye jamono bii gis nañ ni li nga doon teg yëpp ay pexe yu jublu leen ndax sàcc nga mu weddi bam set wicc ni loolu taxu koo jug waaye ci biir wedd gi mbokk yi amul benn yoon bu mu convaincre gars yi ndax nag dañ ko def garde à ba mu jeex ñu defeere ko ca kaso ba tëj ko ba nin ko àttee tribunal àtte nañ ko ba mu jàkkaarloog juge yi démb moom lañ koy toppee mooy usurpation de fonction et vol aggravé maanaam woote fonction boo xam ne newul ci yow ak wëlbatiku di sàcc boole fitna loola la def moom Bugaar di yooye itam bam set wicc ci tribunal léegi nag tribunal ni kon nañ écarté délit d'usurpation de fonction bi ñu disqualifier vol bi waaye ñu def ko abus de confiance ndax comme jëflante naag waa ji ñu xaritoo ci diiru benn fan diggante 17h ba 19h ñuy waxtaan amul benn xalaat bu muy def lu dul abbu waa ji moto ndekete boobu da doon rawi nañ ko def abus de confiance maanaam yaakaar gu tas nit yaakaar la ba wóolu la nga tas yaakaaram biñ ko defee loolu tribunal nag atte ko ñetti weeri kaso la tëdd moom Bugaar moom Bugaar day ñetti weeri kaso tëdd na ko moom ji Bugaar kon nag mbokk yi fee baa ngi noonu mu nekk feeg bu doy waar ñëw jóge ba Saint-Louis ñëw Louga amoo benn xalaat booy def sàcc motob jàmbur daw ba génn sotti Kébémer bi naroon a wuti Louga ñu jàpp la loolu fitu gaynde mënta wees lool beneen bi ci des ak yaa yaafuus parce que ki ngay sàcc sa moroom la mu ngi gaare ci aada Jakarta di liggéey ngir ñàkk bañ ko ko yëpp yow nga wëlbatiku xep sa bopp ñëw jël alalam ñuy wax nga xàccal ko kur feñ boo xam ne bi nga ko ko dóoree moom daa néew doole sax pour jug ndax kurfeñ boobu da nga koo mel ni ku ko assomé da koo encaissé rek ni këpp ci suuf ba mu ne këpp ca nga profito daa di wëlbatiku def li ngay def pour dem jël moto bi te fekk ni rawoo ba pare nga yéeg ci seen gi jàmbur fekk ay waa kër yu toog nga jékki-jékki ni bacax ci seen kaw ñoo tiit jaxasoo nga yéeg ci kaw zeng bi mel ni am siiru këcc këcc zeng yi jàmbur rucc paaka ni da ngay jam sa bopp dangay xaru zeng ya mooy la nga daanu ca biir surux ba jële ca gaañu gaañu yu métti man dama fonni waa ji aw yaramam itam bu neexee itam bariwul lool la ca gën doy waar mooy la gën a doy waar mooy kërug jàmbur gi nga ñëw dugg te yëgaloo seeni borom pression boobu rek mën naa rey nit parce que nit mën naa yem ci wax sa paaka ni dër daanu de loolu lépp mën naa am heureusement ba kër ga am nañu maîtrise ful bi topp nan la daw ngaa daw ba mënatoo raw nga daal di ni da ngay xaru ba nan la jàppee ñetti weeri kaso boo ko tëddee boo génnee di nga jub ndax na comme réew bi dañ fi woote jub ak jubal yaakaar naa situation bi boo ci nekkee di nga jub kon mu doy waar loolu mbokki internet yi beneen jàngat bi mooy booy bi lii rek war na yedd xelam yedd bépp booy jakarta maan parce que milieu jakarta maan ay cas d'agression yu mel nii de ci bari da ngay ñëw ñu ne la yóbbuma barab sàngam nga fay ku leen soit mën nañ laa fay wala ñun la bu ñu yeggee en cours de route ñu profité assommé la nga ne janjang ci tali bi ñu jël sa moto dem wala ñu yóbbu la ci ba ci barab boo xam ne am na ñaar ñu la fay xaar boo ñëwee ñu tëgg lay peel ba nga sedd guy ñu romb la kon jot na ñoom itam milieu boobu ñu gën a renforcer sécurité bi bu ko defee ñoom itam ñu ànd ak ba nit rek doo ko xam tey suba nga àll sa alal te dëkk koo xamoo fu mu jugee mu nax la yóbbu ma kaso policier buñ ma affecté la ndagate li muy wax gëmu ko ndagate boobu sa alal la bëggoon a teg loxo ndax ak caay-caay ko tax mu jóge ndar ba Louga kon mu doy waar loolu mbokk yi kon nag euh, feebaa ngi noonu dañuy wax rek ngeen yi abonné di partager di aimer ak di commenter bu ñëwee di leen man di indi seen rubrique faits divers yi ci seeni plateforme saa suñu xëyee rek di leen nettali li xew ci réew mi ci wàllu faits divers ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal kendalu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen